dafa toll foo xam ni képp koo xam ne ni Sénégal ñor na la képp koo xam ne ni sénégalais ngay wooye sa bopp képp koo xam ne ni même bu dul sénégalais bëgg nga Sénégal réew mi dafa toll foo xam ne ni ñëpp war nañ xam ni taxaw jot na euh, ma toog xalaat ci réew mi yàlla def ñii ñu jiite tey ba ñuy jël nguur gi fekk ma bitim réew may xool di observer leen di xool bi ñu ñëwee ba léegi fi ñu jaarale réew mi ma leen di topp ni ñu tàmbalee seeni premier pas ba fi ñu toll ñu gis ni nit mën naa wax a wax ba jëlum réew waaye wax a wax ba doxalum réew moom amul fenn loolu pexe àggu fa ma am ñaari choc depuis ñii bi ñu egsee ci nguur bi bu njëkk bi mooy dama jàppoon ni ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite am nañ projet dama ndax damaa fukki at ñu naan projet bi projet bi projet bi nan dee ci projet bi nan taal ci projet bi ku dee ci projet bi sa yaay juraat lépp ñu dégg ko ndekete projet am deuxièmement ma dégg ñu ni projet boobu 4000 cadres ñoo ko bind maanaam ñeenti junniy nit yoo xam ne dañoo xereñ seen xam-xam màcc ñoo ko bind ma jàpp ni ñii di wax projet bi am nañ ay boroomi xam-xam bi ñu ñëwee ci nguur gi di ñi ñu noomee ñëpp ay fecckat lañ ak i nit ñoo xam ni man rek lañ tane ci xam-xam yamuñu foofu bi ñu ñëwee ba léegi lan lañ constaté mooy loolu ñuy wax naan àq ak yellee fi doomu aadama nga xam ni Sénégal yi dañ koo xeex ba am bi ñu ñëwee ba léegi ñu ngi koy jalkati juróom benn weer nga agsi ci nguur tëj nga Bah Diakhaté tëj nga Ahmed Suzanne Camara tëj nga Cheikhouna Keïta tëj nga Imam Ndao tëj nga Bougane Gueye Dany jéem nga tëj Cheikh Yérim Seck ci gàttal daal lépp li ñu waxoon bi ñu ñëwee ba léegi contraire bi la ñuy gis